par exemple oui euh, nomination wu euh, soo gisee ñu nominé ku mel ni kilifa bu kër gi crew euh, yanamaar gis ñu nominé aussi ku mel ni nit dof Mortala Gueye def nañ PCA yow ban ban ban mm. ban kii nga si am ban appréciation nga si am. affaire u grand frère laay def. Mm-hmm. parce que ñoom ñaar ñëpp seen mag la. la. kilifa rawati ci. Mm-hmm. li tax kilifa rawati ci parce que wax na ko bi ñuy ñëw Dakar maa leen dalal. Mhm. wutal leen fuñ nekk. jox leen mer wax nañ ko fu ne loolu. way xam nga mhm. ba pare man su ma demoon kër kilifa yaayam yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. li may dem Kaolack kilifa di fa nekk sax bëriwul. wala su may dem Tamba. escale Kaolack war fa fanaan. damay dem kër ñoom kilifa yaa ji jox ma ne ban néeg bu am kilim moo fa nekk. maire bi jox ma ma dugg ci néeg bi. tëdd ñu toppatoo ma niñ may toppatoowee mm-hmm. bu ma jógee continuer samay activité soxlawuma te pourtant caat moo tax ma xam kilifa mm-hmm. parce que entre les deux caat moo gën a nekk suma gain en réalité mais man a kilifa kilifa c'est vraiment ku ma xam la ku ma liggéeyandool la ci biir yaanaamaar ñu seqaay affaire lu yu bëree bëri xamante xamante bu baax a baax a baax biñ ko falee dama ko woo félicité ko ne ko ouvre-toi au hip-hop en général ouvre-toi à tous les acteurs mm-hmm. te nga fexe indi ci affaire bi vision parce que liggéey yomb na mm-hmm. da ngay wut ci am na loo xam mais demal aussi seeti ñeneen am na lu ñu xam ma ne ko d'ailleurs sax je te propose au Grand Théâtre qu'on organise les cinquante ans du hip hop dans le monde daaw la hip hop am juróom fukki at Sénégal am ci wàllu trente cinq ans ma ne ko je peux te proposer un spectacle au Grand Théâtre liggéey nañ ci loolu mu nekk premier aspect booy présenter ma ne ko c'est très important ma ne ko il faut donner du contenu il faut faire quelque chose pour le hip hop. mais njukkal. njukkal surtout man mii sax man bàyyi bëgg à mais naka laay delloo njukkal hip hop. mais Karim mais sax moo moo ñu def. bi ñu bi ñu lépp bàyyee. hip hop moo ñu def. ci hip hop rek lañ xaj. mais Karim ñun bi ñuy tàmbalee hip hop hip hop yombul. yombul bi ngay génne sa premier album dafa yomb. bi ngay def featuring ak Souleymane Faye bi ngay def Big Rouge bi ñuy def affaire yombul c'était pas évident nit dof aussi je l'ai appelé ma ah, ko ne ko ubbeekul ci ñëpp déglul ñëpp waxtaanal ak ñëpp mais fexeel que affaire bi à la fois mu am un contenu très artistique parce yàlla mooy tax ñu fal ay nit mën nga ci am ay avis de part et d'autre mais on les laisse exercer aujourd'hui nit dof nekk na ci position boo xamante ne c'est lui qu'on juge ah. Ah. moom ak kilifa yëpp nekkoon nañ ñoom ci ay position yoo xamante ne ñoom ñoo doon juger nit mais aujourd'hui c'est eux qui seront jugés et ils seront jugés sur la base de leurs résultats mm-hmm. Mm-hmm. mais nag bu fekkee yow lañ dénk da ngay ubbi sa dënn dañ laa dénk nga xam ne alalu askan wi la nga xam ne ñëpp nga jàpp du pour ce n'est pas affaire la boo xamante ne aussi fonds bi dafa am histoire fonds de développement des cultures urbaines mhm. Macky Sall yaanaa maara taxoon mu créé ko de dafa njëkk a créé bureau des cultures urbaines def décret en 2012 bi ñu njëkkee dajeeg moom biir këram man Fadel Aline kilifa Thiat Ibamaar. bi muy soog a toog ci pouvoir bi soog a toog non pas Ibamaar bi ñu toogee mu ne ndax wax wax yan post ngeen bëgg ñu ne ko ñuy post mu ne j'avais déjà pensé au bureau des cultures urbaines teg naa ko ba pare boobu sax bureau sénégalais des cultures urbaines BSCU la ko tuddee ñu déglu ko ci ni mu ko comprendre ko ñu ne ko ni nga ko comprendre du loolu de ñun on te parle de créer quelque chose pour le hip-hop ci lay xalaat la fonds de développement des cultures urbaines 2017 Youssou Ndour organisait une rencontre avec les acteurs des cultures avec les acteurs du cinéma de la culture théâtre ñëpp nekk fa Souleymane Faye mu ngi fa woon même Pape Pape Niang woykat mu ngi fa woon te mu woy garab gaa yi toog ñëpp ay Ousmane Sow Ichar gaa yu bëri ñu ngi fa woon ñu toog rappeurs yi fa nekkoon Matador Awadi Xuman na ma yow jëlal parole jox ma responsabilité pour ma wax ma fàttalik Macky affaire bi Macky ne waaw joxe ay instruction ñu def fonds bi trois cent millions année bi ci topp trois cent millions bi ci topp six cent millions bi ci topp six cent millions ba waa TRG niñ fay demee daje ak Macky yavee la ñoom fukkeen kuuk et cetera boobu man fekkewuma ko ci la gars yi di ko wax yóbbul fond bi un milliard tey effectivement fond bi mu ngi ci un milliard voté nañ ko un milliard boobu effectivement moom la ñu war a doxal il y un directeur déjà Cheikh Ndiaye mm-hmm. il y a un PCA muy nit dof effectivement mm-hmm. c'est quelqu'un de la culture hip-hop c'est un grand artiste mm-hmm. boo xamante ne il continue à être à il continue il est en activité. parce que oui donc bëri na ci sunuy morom yu nekkatul en activité. comme moom mu fi nekkee donc ça ça ça c' est important. Mhm, c' est très important maintenant nag li ma rek mooy ubbeeku yaatu déglu ba pare comprendre ba pare xajo c' est important parce que le hip hop daf bëri coow. bañ ko xeexee hip hop dafa bëri coow. oui c' ça merci man bi ma laaj dama ni. xam ni. Sonko moom ko. merci Diomaye moom ko kenn du merci et affaire dafa am histoire. xam nga li tax ma bu ko xeexee déedéet parce que par exemple lay wax fond de cultures urbaines. Mhm. bu doon euh, yeey la rek. ñu jàpp ci fi mu jóge naan ñan ñoo ci gën a yey doo ci dindi Simon doo ci dindi kilifa Simon benn yoon la ci mës a am. ne bëggatu ci. ah te amin bi doo ñëw rek ne jox leen ma ñu jox la de. appel à candidature la. gars yi appel projet way gars yi dañuy lancer appel bi ne ubbi na tey wax waxtu nangam jox nañ leen délai un mois ngeen liggéey si ñu laaj leen ay critères jox leen ay ligne directrice boo leen ko remplir jàll boo leen ko remplirul jàll te fond bi gëj na dox daaw doxul daawaati jéeg doxul oui mais mais li li fi newoon anamu li fi newoon anamu ñun daaw organiser nañ Géejawaay Baay Rab jotuñ ci fond bi dara. oui non je veux dire sa gouvernance dans la transparence ñi fi nekkoon ils avaient réussi à mettre en place un comité mm. parce que Tafa jotul gérer dara ci fond bi parce que diggante bi ci la dem est-ce que xam diggante bi ci la ko nit dof remplacer mënuñu ko on ne peut rien on ne peut imputer à Tafa aucune responsabilité. Mhm. jotul nekk en exercice. ok jotul jotul liggéey ko moom. jotul liggéey. mais xam nga émission Fallou Founé may rappelé gars yi que yéen a ngi si seen teranga ñu day ñu ñëw seet si grand